sëriñ Touba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll sëriñ Touba amul mën naa daal fu ne di bërëmu waaye bu fi sëriñ Touba fi lay yem. niñ ko xamee jataay bi daa bokk ci jataay yi nga xam ne saa su màggal sëriñ Abdou Lahad jub commission culturelle bi sëriñ Abdou Lahad Diakhaté jiite. ànd ko membre yëpp dañuy amal ay yëngatu ngir waajale ko màggal bi di ko defee ci ndigalul Serigne Sidi Mbacké yëngatu yooyu yëpp it lay solo sax mooy ñu xamle Serigne Abdou Lahad xamle ay taxawaayam ngir génération bi nga xam ne fekk wuñ woon jamonoom man di niitoo ci ay xekamam ci ay doxalinam ngir di ko yéwénale suñ jamono ji ñu teew di ko yéwénale suñu dund ren ñu tàmmoon tànnoon ab thème boo xam ne dafa yitteel lool jullit ñi mën nañu wax ne doomu aadama yëpp la yitteel muy wàllu jàmmoo fexe ba nit ñi di dund ci seen biir di dund ci jàmm loolu jamono ji ne lañ koy soxla waaye jamono ji dañ ko dafa raw bu ñuy dégg nit ñi da ci seetlu nit ñi di jëfandikoo ay baat yoo xam ne yooyu bokk ca woon ca baat yooyu buñ ko bàyyee mu jàll mën naa dem ba jur loo xam ne kenn bëgg te jàmm moom du doy waxtu wu nekk dañ ko war di dolli di ko suuxat kon ngir njëkkante waxtu bi ñu fàttali ne am na ñetti tomb yuñ tànn yoo xam ne yëpp day dugg ci luy jur jàmmoo da incha allah sëriñ Cheikh Mbacke Niang danañu andil ci ay minutes yu néew dawru silmi wal amni fii binaa il mujtama kenn ku ne xam na ne ak aw askan lu la koy tabax jàmm ak sécurité am na ca waar yaatu wax ne bu amul ngir tabax aw askan dana jafe léegi nag lan la jàmm jooju ban doon la am ci buñ bëggee tabax aw askan incha allah sëriñ Cheikh Mbacke ñam danañu andil ci tomb boobu lu leer suñ ci jógee danañ jox sunu mag alhaaji Fallou Bousso moom itam am tongo boo xam ne danañu ci dikkal muy al islaamu diinul uxuwati wa tasaamox al islaam diiney bokkoo la waaye it diiney balante balante la li ñuy wax tolérance moom tamit danañ ci indil ab tomb bu doy incha allah loo xam ne dañ ko mën a jariñoo ngir mën a suuxat jàmm ci suñu biir jërëjëf Serigne Abdou Lahad ci kàddu yi ci say kàddu rek ci lay soof kàddu nuyoo yi rek mu yóbbaale ko di rafetlu jotaay bi bu baax a baax di ziare nag mbooleem waa kër Cheikh Abdou di leen ndokkeel ci jiital ci bis bii di ñëw di rafetlu bu baax a baax liggéeyu commission bi ak tànn bi ñu tànn tomb bii ñu tànn ren ndax yitte woo ko mu yitte woo muy wàllu jàmm jàmm di loo xamante ni lu am solo la waaye bokk ci li gën a jafe ci jamono yi ñu toll jàmm kàddu la benn kàddu la boo xamante ne rek buñ ko waxee dafay jëm ci lépp luy tax ak dal am ak kaaraange ci biir askan moo xam jëf la walla wax moo koy sabab waaye lépp lu tax ak dal am ak kaaraange ci biir nekkee nu doomu aadama ñu sori jëfandikoo doole ak noteel xel mu dal am loolu la ñu tudde jàmm ragal duutu fi nekk tiitaanga duutu fi nekk stress duutu fi nekk mooy bopp bu yooyu yëpp duutu fi am ragal nag saa bu amee rek mooy lu ñëwagut la ñuy ragal waaye lu xas teew moom teew na waaye lu ñëwagul dañuy ragal kon bataana lu nit di tiit nekk ci jaxasoo lu ñëwagul moo koy waral ci beneen anam mooy nit ki yëg ak dal wala mbooloo mi nekk di dundandoo ñoom ñëpp yëg ak dal wala ñi ci ëpp yëg ak dal kóolte am seen diggante cofeel am seen diggante ak yàqute ak mettital yépp sori leen loolu mooy jàmm kon kenn kàddu gu néew la waaye bu yaatu la mu doon lu am solo nag ndax bokk na ci xéewal yi yàlla xéewal yi gëna a mag ci yàlla xéewale doomu aadama mboolem lu yàlla jox doomu aadama su ca jàmm amut du ko mën a jariñoo kon jàmm mooy laytaayu daanaka xéewal yépp mooy tax li yàlla bëgg ci ñun ci àdduna mën a sotti mooy taxit la mébét ci àllaaxira ci wàllu texe mën a bu jàmm amul dara du sotti loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni man asbaha minkum aminan fi sirbihi muaafan fi jasadihi indahu quutu yawmihi fa ka annama lahu dunya képp koo xam ne xëy na am xel mu dal amuk dal am jàmm yaramam sutantewul ba noppi mu am lu tollook dundu bés bi rekk mel na ne jox nañ ko àdduna ak li ci biiram kon loolu dafay wane ne rek lu ama am solo la kaaraange nag buñ ko waxee benn baat la waaye dafay làmboo yu bare bari yu lënkaloo am na lu ñuy wax al amnul fikri yi muy am kaaraange ci sa wàllu xel ak sa xalaatin am na lu ñuy wax al amnu rooxi am kaaraange ci wàll dund sa pas-pas am na lu ñuy wax al amnu ala ashxaasi wa ala al am na kaaraange ci jëmm yi ak kaaraange ci seeni moomeel am na lu ñuy wax al amnul bii kaaraange ci li ñu wër fi ñuy dund am na lu ñuy wax al amnul xisaa yi mooy kaaraange ci ni li ñuy lekk li ñuy dund ak al amnul xawmi mooy kaaraange ci mbooloo mi lépp kon dafa doon benn baat boo xamante ni dafa lamboo yu baree baree baree bare kon musiba du rek faatu faatu moom étape la waaye yeneen yi ci des yëpp lu ci dal nit rek musiba la ak ñàkk musiba la wéré di musiba la tiitaanga xel mu danut musiba la ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp lay tudde musiba musiba yooyu nag benn bu ci dal doomu aadama mu mun ko ca rafetal mu ñin wa yàlla da koy fay fay gu rëy rëy rëy rëy woo baatu kaaraange ak baatu jàmm lu mu lënkaloo koom am koom ci biir alquran al karim al iqtisaad bari na kaaraange al am lu mu lënkaloo am am walla mu lënkaloo tiitaanga wala mu lënkaloo tooñaanga bari na ci barab bi mu ko tudd yoo xam ne yëpp boo ko xoolee benn mu tudd fa xiif wala mu tudd fa euh, euh, ragal wala mu tudd fa yeneen fal yacbudu rabba hada albayt alladi at'amahum min la tudd foofu wa amanahum min xawf tudd tamit fu muy tuddee joxe ci yoonu yàlla ca jeexital ba day dalal nit ki wane ko ne ku koy def ca yàlla tax tiitaanga ak lu muy ragal duutu amati bari na ci ay barab yu waxe alladina mit bokk na ci alladina yunfiquuna amwaalahum bil layli wan nahaari sirran wa alaaniya fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim kon euh, baatu kaaraange bari na lu muy lënkaloog am-am am-am boobu nag dafa doon lu am solo ci dundu doomu aadama ndax bu kaaraange amul am koom. du mën a am nañ ko bëggee waaye it euh, dafa dañoo lënkaloo kon kaaraange faaw mu am koom mën a am koom it munta am ca kaaraange amul su ko defee nag tiitaanga ak xiif ak ñàkk ak wéradi yooyu yëpp dafay jokkoo ak am dafay jokkoo ak am moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ak ñàkk fu mu wàcc bu bu takkee bagaasam ni day tukki ak weddi yàlla danaan ko yóbbaale ma néewaana nit ki ñàkk toll ci yenn tolluwaay ba noppi xel mu dal ànd ak xel mu dal moo tax da koy lënkale ak am yéefar yi tamit bokkoon na ci ay jëf yu ñu doon def la ko doon waral mooy ak ñàkk mooy jur doom di ko suul wala di ko rey doom yu jigéen ñi yooyu ragal ñàkk bokkoon na ci li taxoon ak daw ay fere kon loolu it mooy tax gis nga tubaab yi lu ci bari ci yëngu-yëngu àdduna yi buñ koy bu ñuy wax li ko waral bokk na ci mooy ak ñàkk la pauvreté te toujours buñ ko bëggee saafara dañuy fexe ba am koom gën a jëm euh, gën a gën a bare. moo tax boo delloo ci démbi réew mi da nga gis ay jàmbaar yoo xamante ni muy réewum Sénégal muy yeneeni réew da nga gis ay jàmbaar yu taxaw yoo xamante ni seen dund gépp seen am-am yépp seen xam-xam yëpp seen i njaboot yëpp dañ koo sacrifié ngir ngir réew mi buñ jëlee ko mel na Serigne Touba radiyallahu anhu xat-xat yim tegoo yëpp ci dundal taxawal diine ak sàmm way diine yi ci biir réew mi ak fuñ fi mën di nekk ci àdduna bi looloo taxoon mu tegoo su ko defee euh, lottal gi ñu doon lottal senegal yi ak teg loxo gi tubaab yi tegoon loxo ci biir réew mi amoon na ci taxawaay ba tegoo ci lu bare bare ci ay sacrifice boo demee ci yeneen réew mi yeneen réew tamit da fa fekk nit ñu mel noonu boo demee fu mel ne Afrique da nga fa fekk Nelson Mandela dundam gépp gépp réew mi la ko dox nga dem beneen réew noonu la réew mu nekk dana am ay jàmbaar ak i nit ñoo xam ne histoire da leen di tudd ndax dañoo def ay sacrifice yoo xamante ni euh, seenum réew moo tax euh, jàmm jooju mooy mën a tax. li ñuy tudd ak doro al maqasidu shar'iyya faaw mu mën a am mooy nit mënut a nekk ci kaw suuf ca du am dara lu mu gëm du am pas-pas kon diine ngir mu taxaw faaw jàmm am nit ñi tamit ñi ko war a dund war a def ndigalu yàlla ci kaw suuf faw ñoomit ñu nekk ci jàmm kon dafa doon loo xamante ni l'islam da ko jox yitte lool ba tax mu def ay joxañ yoo xam ne ñëpp war nañ ci taxaw war nañ koy sàmm ba noppi lislaam bi mu ko diglee tamit dafa dafa dafa daf leen wutal sabab dafa wut nit ñi dafa bind nit ñi ñu wuute ci seen kàllaama wuute ci seeni melokaan wuute ci seen wuute ci yu bare bare bare ci seeni pas-pas ba noppi nag mu ne leen wuute yooyu nga xam ne ci anam yépp la na nekk ay cëslaay ci ngeen déggoo nekk cëslaay ci ngeen jegeyoo nekk cëslaay ci ngeen jéem a xamante ci seen biir na doon lu leen di xëcc ci jéem a jegeyoo ci jéem xamante ci jéem a déggoo waaye bu mu leen tàqale daan ne daan ne kon def na leen wuute yooyu bu mu leen tàqale bu mu indi ay ci seen biir waaye na wuute yooyu na na nekk sabab ci ngeen déggoo ngeen a kenn ku nekk lam amut te moroomam am ko na dem wuti ko ca morom ja kon bokk na ci li nekk yeneen la ji ci wuute googu mooy def ñoo sant ngir mu nekk cëslaay ci ngir ñu jege ngir ñu xamante li taarafoo gi muy wax daan nag yéen ñëpp na ngeen dugg na ngeen nekk ci jàmm kenn laa leen di moytandikuloo mooy seytaane kenn laa leen di moytandikuloo mooy seytaane seytaane moom moytandiku leen ko seen noonu la ci yéen ñëpp a ko bokk muy seenum noonu mooy l'ennemi public numéro un kooku bu ngeen ko moytandiko yi ci des yëpp man ngeen koo gérer. yaa ayyuha alladina amanu duxulu fi silmi kaafa wala tattabiu xutuwaati shaytaan innahu lakum aduwwun mubin seytaane moom dañ ko war a teg de côté moom la ñëpp bokk muy sunub noonu bu xasee ba féete côté yi ci des yëpp mënees na koy gérer waaye saa bu duggee ci mbir mi du dara du sotteet kon loolu tax mu tare it lépp luy waral par parloo lépp luy waral xëccoo akum noonoo akum mbañante mu tere ko ndax day tax doole ji ñu waroon a am duutu fi nekkati day tax jubluwaay projet yi am yépp du mën a lijjanti ko mooy kon échec la ñuy yóbbee loolu it moo ko wax wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum waaye nag loolu lañu koy may ci loolu lépp bañ a am mooy faaw muñ moo ko mën a laal ndax faaw ay jafe-jafe di am ay rëcc rëcc di am su ko defee loolu muñ moo koy eggale beneen bi ci des mooy faw tamit jàmm jooju léeg-léeg jëfandikoo doole faaw moo koy mën aar jëfandikoo doole faw moo koy mën a aar buñ demee ba jàmm nar fee jóge faaw ñu jëfandikoo doole ngir aar loolu mooy sababu eh, eh, sababu lislaam santaane jihaad ci ngànnaay bu waaye bu jàmm dee am rek diisu ko jëfandikoo doole waaye saa bu jàmm naree randu ngir doole faaw doore rek moo ko mën a delloo si waat taxit bu juyoo amee ci biir jullit ñi ci ñaari kuréel la ñuy njëkk a def mooy jéem leen a jubóole ci waxtaan ci ci eh, njëkk ak teraan bu ci amee ku dëgër bopp nag yàlla dafa digal kuréelu jullit ñi ci des ñu weñ loxoom ngir mu dellu siwaat ci yoonu jàmm wa in taifataani min almuminina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in bagat ixdahuma ala al oxra fa qaatilu allati tabagat xatta tafia ila amrillah kon euh, jàmm léeg-léeg doole moo koy mën a sàmm looloo tax ci réew yi tamit ñu am ay kaso di di def ay barabu attewukaay di teg ay euh, ay euh, ay commissariat di teg ay gendarmerie di teg ay camp yooyu yëpp faaw léeg-léeg jàmm luy nuru doole moo koy mën a aar mais doole jooju nag violence boobu violence institutionnelle la maanaam mooy charan yi la noonu fu charan yi waaye ñun ñi kenn amu ci sañ-sañu jëfandikoo doole ci nu ko neexee yoon daa am ku may jëfandikoo doole ngir sàmmu jàmm loolu it moo tax fu yëngu-yëngu am ci àdduna bi nga gis waa mbootaayu xeet wi di fa yabal ay militaire ngir delloo si jàmm mu am ay barabu attewukaay ci àdduna bi mu maxaakim dawliya ngir bu wuute amee ak euh, jaay doole ñu mën caa attewoo kon ñaareel bi mooy léeg-léeg faaw ñu jëfandikoo jàmm ngir delloo si ko bu fi naree jóge ñetteel bi mooy ñaan xam nga naan am na ci yoo xam ne ci loxo doomu aadama la nekk waaye am na ci yoo xam ne nekkul ci loxo doomu aadama ca ñaan mooy ngànnaayal jullit lu mel ni que ay catastrophe bu amee ay jéye yu mag yu ndox waral walla ngelaw walla nawet bu nanguwut wala ay suuf su yëngu wala jàngoro yu jékki-jékki feeñ ci barab yooyu ci loxo yàlla la nekk sababu doomu aadama yi xëy na mi ngi ci léeg-léeg waaye nag ñaan aw yoon la ci ngir ñu mucc ngir jàmm am ndax yooyu saa bu amee jàmm duutu amati cim réew fitna moo fay juddoo ñàkk toxu ñàkkum liggéey toxu bañante toxu yooyu yëpp moo tax Ibrahima alayhi salaam yonente yàlla Ibrahima ba muy ñaan jàmm daf na yàlla wërsëgalal waa réew mi ngir jàmm am fi ak kaaraange ñu mën a dund seen diine wa id qaala ibrahimu rabbi ij'al hada baladan amina warzuq ahlahu min athamarat wax feneen tamit wa qaala ibrahima rabbi ij'al haadha al balada amina wajnubnii wa baniya an na'buda al asnaam moo ne kon daal balaa liggéeya mën a am balaa jàmm yàlla mën a am faaw euh, jàmm am kaaraanga am euh, nit ñi nekk ci kii Sëriñ Tuubaa tamit bi mu sancee dëkk bi loolu la doon la ñaan waj'al hariimana hariiman amina wa kun bi hifzihi kafiilan daamina faaw kaaraanga am jàmm am euh, wërsëg yaatu nit ñi mën a dund ci kii jàmm jooju nag moom dafa jëfandikoo sax baatu aljana ngir wane yéeneem ci bëgg jàmmu yaatu wa jannatan li sarikin muridi wa junnatan an hatikin maridi kon bu jàmm amee ba mel na ñu ngi ci àjjana fii ci àdduna bu boobaa xiif ragal musiba wéradi yépp dafay daal di randu ci loolu nag lañuy wax ne bu jàmm amee yii mooy mën a am bu amul yii dara du ci mën a nekk mooy faru al xuquq al mooy nit ñi seen i àq ak yelleef pour ñu mën mu mën a ñoom faawu jàmm am bu jàmm amul du mën a sotti beneen bi ci des mooy nit ñi seeni i liberté seen i ci wàllu pas-pas ci wàllu wax sa xalaat ci wàllu dem ak dikk bu jàmmu amul loolu dafay tënku lool moo tax nga gis ay réew yoo xam ne bu fa jàmm amul dañuy def li ñuy wax couvre-feu la ñuy wax wala état d'urgence maanaam di wutal nit ñi heure yu ñuy génn ak heure yu ñu dul génn bu aw xew-xew bu mag sax amee cim réew lu mel ne que ay tànn njiitu réew da ngay gis ñu tënk liberté nit ñi nii leen diirub sàngam mayuñ kenn mu tukki diggante dëkk ak dëkk mayuñ kenn mu yor ngànnaay ak yeneen ak yeneen loolu mooy mën a tax jàmm am sëriñ Abdoulaye bu fekkee ne génn naa ci moom moomu tal maa ngi koy jéggi bu baax a baax jërë ngeen jëf sëriñ Tuubaa la te yaakaari benn murit bu jàll sëñ tuuba am mën naa daal fa ne di bërëmu waaye bu yegsee fi sëñ Touba fi lay yem